def ko waaw lépp lu war def nañ ko boo xoolee ndugg yaa ngi nii am na yoo xamante ni defar nañ ko ba pare euh, yóbbu ko ci kaw. ñëw di dinañ la dalal di nga lekk di nga naan ba suur commencé nañ ko gérer yàgg na ginnaaw yi raxas nañ ko bu yàgg gis nga nag yaa ngi ci buntu kër bi géttu xar gi dafa am koy lakk di indi prép ñu ngi koy préparé macha allah. ca Cambérène itam abi pare na lépp ngir rekk dalal mbokkam waalo waalo yi. aajal naa sama bis. ndax macha allah sama dara tardewul si kàttanu yàlla samay ndugg ak nii samay soblee ngi fi samay pombiteer ngi fi sama ñetti nag ngi taxaw samay bagage yëpp ginaar yi lépp dara manqué wu fi daal bis bi daal moom dama bëgg daal lu niinul dana saf suukar ñi di taalibe yi dinañ leen dalal bu baax yaatal leen kër yi comme ni ko bëggee woon sang bi di Seydina Limaamu Laay première mi ngi fii nga toog deuxième ba troisième lépp macha allah ay gan a ngi fi kon man gan yi nu ñu man toll rek bu neexee yàlla am naa dëkkuwaay bu ma leen dalale. appel bi pour gan yi la moo tax dañuy génn sunu néeg yi génn sunu saali lépp dañ koy ibbi yaatal ka pour ñoom ñun dañuy génn ali parce que noonu lañ ñu ko santaane woon sanga bi dana woon yaatal leen sa xet yi gan yaa ngi ñëw. ñoom taalibe yi ñu ngay kontaan ak béeg bu baax ca dalal bi. woo waa waalo ñun ñëpp ñëw. moo teral nu daanu lekk daanu naan dara manqué wu fi gisuma manqué wu fi dara manqué wu fi. dal waalo waalo la dana lu fi nii lu ne day saf suukar nag fii neex si boppam. mën nañu gan lool nag ñu nu fekk si ak ñoo mën a gan mën nañu gan lool te ku fi néew daal lekk daan naan du soobee yàlla si kàttanu yàlla suñu borom. appel bu Seydina Limaamu Laay dina tàmbali talaata suba ñiy dëkk foofee ca Yoof ak Kambireen di ko waajal bu baax fas yéene dalal ñi di taalibe yi jóge fu ne ngir rekk ñëw teew boobu li 143e édition